opération yi ñu mujjee amal di seet ak ak di xeex trafic illicite jur na njariñ ndax lu ëpp ñetti téeméer ak juróom benn kilo cocaïne lañu deg loxo ca Musala lu ni ñu ngi ko amal ni ki gaaw gi weesu yemook fukki fan ak juróom ci weeru fii ñu nekk brigade commerciale des douanes bu Musala moo def lu ni mel ndax agent yi nekk ci boobule unité ñoom ñoo teg loxo ab camion frigorifique bu doon daw diggante Musala ak Kédougou jóge ci benn réew bu jege yow ak réewu Sénégal fuy yi ñu amal ci boobu boobule camion tax ñu teg loxo lu toll ci ñaat téeméer ak juróom benn fukk ak ñeenti plaquette cocaïne loolee ñu dal di koy nëbb nag ci biiru compartiment bu ventilo bi nekk ci firigo bi loolee lépp nag bañ ko xaymaa toll na ci lu ëpp ñaar fukk ak ñeenti milliards ci suñuy koppar ginnaaw gi fukki kilo ak juróom-ñetti cocaïne tamit jàpp nañu ko ci aérogare bu ay AIBD ndax ab valise bu jóge ci benn réew nekk ci digdégalu réewu Sénégal dal di waroon a wutali réew bu nekk ci Union européenne tax na ñu xam ne am na ay traces yoo xam ne dafa fësal ne cocaïne am na ci biir sac bi ci noonu ñu fekk ca fukki plaquette ak juróom-benn loolee lépp toll woon na ci benn milliard yu toftal ñeenti téeméeri million ci suñuy koppar naka noonu benn berline boo xam ne màkk guy Saalum lañu ko tegee loxo ci ñetti ak juróom ñeent fukk ak ñaari kilo ci ay garab yoo xam ne baaxul opération boobee ñu ngi ko amal ci village yu Màkka Guy Saalum nekk ci goxu Ida Murit nekk ci département bu Koungheul yooyu les garab nag bokk na ci ay antalgique ay antibiotique waaye tam ay aphrodisiaque loole lépp ba nu ko xaymaawee toll na ci lu ëpp juróom-ñaar fukk ak juróomi million ci suñuy koppar loolee lépp ba ko boolee toll na ci lu jege ñaar fukk ak juróom benn milliard yu toftal ñeent fukk ak juróomi million ci suñuy koppar lundi yemook ñetti fan ci weeru juin ab cargaison livraison bu def fanweer ak ñetti kilo cocaïne bu tollu ci lu ëpp ñaari milliards ci suñuy koppar la ñu dal di teg loxo tamit fële ca Fatick ak Kaolack nekk ci diggu réew mi. loo ni mel ñu ngi ko nëbboon ci ab oto type Mercedes boo xam ne immatriculation ba mu nga bàyyeeko euh, ca biti réew buñ sukkandikoo ci ab bataaxal bu bàyyeeko ci waa douane avril tamit benn tonu cocaïne jàppoon nañu ko ca vilu Kidira nekk ci frontière bu Mali weer boobee tamit lu toll ci juróom-ñeent fukk ak juróomi teg nañu ko bu Koumpentoum ñetti ton ci beneen gaal boo xam ne dañu ko daal di indi woon fii ci Sénégal ci weeru décembre tamit tegoon nañu ko loxo naam drogue bi mu ngi gën di lëmbee fii waaye service yu duwaan bu Sénégal xamle ne noppi nañoo xeex trafic illicite bu drogue bi ci anam yépp